الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما للنفس دون خلقه ثم اختبرهم بذلك ملائكته الكرام ليميز المتودعين منهم من المستكبرين فقال جل وعلا وهو عالم بمدمرات القلوب ومحجوبات الغيوب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 delli di ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bi waaye rawatina weeru màgg bi ñu nekk di ñaan rekk mboolem lu ñu fi jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul waaye itam fulal ñu ko bi jaahi sayyidi wujud sallallahu alayhi wa sallam ñépp waaye jiital ko ci kilifa kër gi fa tabarakallahu muy Cerno Xaamidu Baan ak mbokkam yu baax yi nga xamante ne ñoom la bokk nekkal ku ci mel ni ajaa ñu maba fa tabaarakallaahu ak sëriñ samba si ak mboolem koo xamante ne yaa ngi fi yeewoo ñu ngi leen di nuyu jël nuyoo bi teg ko ci loxol oustaz abdallahi njaaye mu joxal ñu ko suñu way juru baax yu di alxaaji imam moussa gueye mu wesaaral ñu ko ci mboolem ku yeewoo ci kër gi waaye rawatina itam mboolem ku yeewoo ci daara dëkkandoo jàmm ca gën ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñëpp moo xam ñi fiite ci bitim réew moo xam ñi fiite ci biir réew mi ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla mboolem loo xamante ne naal nañu ko yàlla na leen yàlla jàppale ca loola ba mu àgg ak jàmm bi jaaxi sayd wujju salallahu aleyhi wa sallam di ci ziyaarate suñu mbokk mu baax Adja Ndeye Guèye ak boroom këram di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla fëgg bopp bu baax bi jaay seydi wujud Adja Ngoone Seck ñu ngi koy ziyaara waaye noonu la ñuy ziyaaraat yi soxna Fat Ndaw ak boroom këram di Serigne Babacar Diaham waaye Adja mère Khady Fall moom itam amoo cinq ñu ngi koy ziyaara ak boroom këram noonu itam nañuy ziyaara Adja Fama Ndiaye ak borom këram di Ibrahima Mbaye fa tabaarakallaahu aja Ami caw soxna Fanta ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax waaye noonu lañuy ziyaara itam mère Khady Fall ñu gën koo miin ci Khady Socé fa tabaarakallaahu ñu ngi koy e, ziyaara bu baax muy mère Fall fa tabaarakallaahu ci taxawaay yu am soloyi ak bëgg alxuraan ji fa tabaarakallaahi waaye yamati ci loolu yar ci njaboot gi ci zahiran wa baatinan fa tabaarakallah soxna faat sooxa mu ngi koy nuyu ak boroom këram di soxna di sëriñ jara ñu ngi koy nuyu bu baaxa a baax ajaa mami ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallah sëriñ pàppaloo ñu ngi koy ziyaara ca France ak rakkam jooji di Maodo Lo waaye itam noonu lañuy ñuy ziyaare Moustapha Gange ñoom ñëpp ñi demaalil géew mboolem ku fa yeewu Mouhamadou Ndiaye ca Niger Abdel Aziz en Arabie Saoudi ñoom ñëpp Mouhamadou Ndiaye Gabon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla yal na yàlla taxaw bu baax di jaahi saydi wuju sallallahu alayhi wa sallam ah, kon ni ñu ko baaxoo def rek seen émission at tazkira ah, ni la ñu fas yéene àndaat ak yéen rek ci seen Safina TV incha allahu di ñaan rekk eh, mboolem lu ñu nar a àddu yal na ci yàlla sof barke waaye tam defal ñu dégg ak topp ba lépp loo xamante ni dégg nañ ko yàlla dimbali ñu bañu jëfe loolu ndax jëf gi rek moo ci am solo fa tabarakallahu ahsanul xaalixiin di nuyu ñépp di ziyaare ñépp alxaaji Assane Gueye ca Yoff ñu ngi koy ziyaara ak rakkam jooju soxna Aminta Gueye ak suñu ilimaan bu baax boobu di ilimaan Saalix Ndiir moom itam doon imaamu raatib ci yoof nangaañ ñu ngi koy ziyaara bu baax ak rakkam ji Papa Ndiaye Serigne Saybatu Gueye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla Ah, mu mel ni rek comme ni ñu ko baaxoo def ci émission taskira ah, mu mel ni kero bi ñu yëkkati jataay bi ñu ngi toll woon ci benn page bu ñu ubbi woon fa tabaarakallahu ñu koy tuddee ponki islam yi nga xamante ne moo doonoon juróom bañu jóge woon ci benn ca ponk yooyu doon ko jooxe ñu ko doon tuddee chehru ramadanan mubarak waaye ñi am jàngat yu ñu ci def waaye li borom bi di wax naan kulli yowmin huwa fi sehnin loolu moo ci nekk nga xam ne jàm bi du deñ rek di nekk ci programme borom bi subhanahu wa taala fa tabaraka allah ndax ci coobarey borom bi ci la mission di doxe te yàlla moom liñ koy faral di waxe pare na démb tey dóor a ñëw nga xam ne lépp lu mu mën a doon ci àdduna bi rekk dig bi lañuy xaar bu dig bi jotee rekk ala kulli xaal du ko yées lu ëpp benn benn seconde la waaye du ko ëpp itam ngir lan ni dig bi jot na isa ja ajaluha la yastaxiruuna saa wala yastaqdimuun kon dafay yellu ci doomu aadama bi mu góor góorlu gën a xam lan la ko fi boroomam andee muy rekk ñi jaamu ko ndax yàlla ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li bu waxoon foofu walla mu yam foofu rekk doyoon na sëkk waaye gis nga la mu ci teg maa uridu minhum min risqin waaye wa maa uridu minhum an yatamuun waaw yàlla nee na binduma nit ak jinne lu dul rekk ñi jaamu ma waaw seen mission du lenn rekk lu dul jaamu ma waaw moom laa soxla ci ñoom waaw yàlla nee na ma ci ñoom wërsëg soxlaw ma ci ñoom ñu jox ma lekk soxlaw ma ci ñoom ñu jox ma ma naan waaw kon loolu kay xëy na amaanu wërsëg ak lekk ak naan jaam bi ci boppam moo koy soxla waaw ci diggam ak boroomam walla ci yaramam laaj ko fa tabaarakallah te loolu itam kenn mënu ko koo jox kudul boroom bi subhanahu wa taala waaw moo tax mu ne man soxlaw ma jox ma ma lekk te doomu aadama bi léeg-léeg dana aaje woo lekk waaw soxlawul mu jox ma ma naan te doomu aadama bi léeg-léeg dana soxla naan waaw soxlawul ma jox ma wërsëg te doomu aadama léeg-léeg dana soxlawoo wërsëg kon gis nga ni nekkete yooyu yépp fa tabaarakallaahu doomu aadama bi dana ko soxla waaye soxla ga mu koy soxla yàlla di wane ne moom bokkul ak ñoom bokkul ak ñun moo waral mu ne soxla ma si ñoom lenn lu dul rekk jaamu gi nga xamante ne moom laa soxla si ñoom ndax amaana bu fekkoon yooyu mu lim am na bu mu ci soxla rek doomu aadama bi dana sooxe walla mu lott pour defal loolu yépp borom bi subhanahu wa taala waaye mën nga ko déggaat ci beneen sens itam muy lekk doomu aadama bi ak naanam ak wërsëgam mag yéppam euh, moom ci boppam mënu ko matale waaye borom bi moom moo ko ko waaw liñ naan doomu aadama bi ñaari biir la yor Ah, muy sa biir bàmmeel ak sa biir bi nga yor biir bi nga xam ne boo lekkee fi lay lekk gi di jaar boo naanee fi lay ndox mi di jaar ñi segg kay lañ cay segg lay dem ca palaas bu nekk mu dem fa lañ ca war a génne itam ñi génne ko loolu biir boobu borom bi nee na doomu aadama bi ah, jarul mu ci xantewoo te xam ne moom mënu koo yore man yàlla man maa ko yor te maa ko man faj te lépp lu mu aajowoo itam man maa ko ciy def waaw kon di ittey doomu aadama bi la muy ittewoo di ko xante du lu mu def ci biir bi wante biir bi yàlla moom moo ko yore ci waxin la ca des nag mooy sawablu boo sababloo nag yàlla jàppale la ca ba lu ca dem dal di yomb alaa kulli xaal ci misaal waaw ah. waaye nee na nag beneen biir bi nga xamante ne mooy ñaareelu biiram mooy biir bi ñuy tudde sa biir bàmmel foofu nag yàlla nee na moom daf ciy maanu ne foofu nag loo fay dund yow yaa ko fay yóbbu waaw ah. loo fay dund yow yaa ko fay yóbbu mais fan nga koy préparer fii ci kaw àdduna bi fi ngay préparer la ngay dunde ci sa biir bàmmeel waaw ko defee bu dee ci biir àdduna bii nag fa tabaarakallaahu li ngay dunde muy biir bi yàllaa ko yore waaw la ngay dunde fee nag yow yaa ko yore ko defee ngay dund fii yàlla yore la sa biir mais itam bul fàttewaale fële itam fa nga xamante ne yow yaa fa yore sa bopp waaw moo tax eh, kenn ku ci nekk rek eh, boo fa demee loo fa fekk na la leer yow yaa ko fa góob ko fa waaye doonu loo xamante ne kaneen moo la ko fa defal fa tabaarakallah ndax booy xool rekk melokaan wa muy ñëwee moo lay wan ne loo fa fekk rek yow yaa ko fa def waaw ndax suuf su bees tàq muy pax moo xamante ne ba ñu ko gasee yàggul manoo ne bii dañ koo gas mu ne fi ay at walla ay weer wallay fan wala waxtu yu bari bala neen ñëw dugg fa dëkk fa ngir yàgg gum fa yàgg pax ma yàgg moo waral loolu déedéet mais pax mi dafay bees tàq jigéen ñi diw kat ah jóge na fi ñu ngi koy waaja ah ñi natt ko ca guddaay ba na mu toll yépp dem gasal ko lu toll noonu kon distance boobu mënu fee yàgg-yàgg goo xam ne dana am leneen lu fay dëkki fa tabaarakallah lañ lay lëmase muy càngaay la mu doon loo xamante ne lu bees tàq la tabaarakallaahu ñu dem ca marché ba waaw dal di koy jënd ca jaaykat ba ñëw ah fas yéene la cee laxas sa yaram wi bu taxee ñi jël ko raxas ko ba mu set fendal la ba mu fend ñi màpp la teg la nële jël càngaay lu bees loolu nga xamante ne léegi lañ dem jëli ko ca marché ba jënd ko ñëw laxas la ci tabaarakallaahu ñëw indi la teg la si buntu jàkka ji waaw taxaw nag niñ koy waxee rek imaam jabatu la muy jabatu waaw rek sab jaam la sa doomi jaam la waaw ah, nekkoon na di seede ne yow yàlla yow yaa yàlla kudul yàlla du yàlla daan seede ne sa soppe bi itam ah yow yaa koy yónni ya xew yépp mu ngi nii bu fekkee daan rafetal ah liñ ñaan daal mooy rafetal googu yàlla na ko yokk waaw dëgg ci nag ba jéggal ko bu fekkee ni bii nag daan na ñaawal ah yow yàlla lu ñaaw loolu dey ah, yow xam nga waaye yàlla na ko sutural yàlla na nga ko suturaal si lu ñaaw loolu fa tabaarakallah wax la nga cay wax yépp muy lu rafet comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah jàngale ñi ñëw nag jël la nag teg la ci pax mu bees moomu ak yére yu bees yiñ la sàng jël suuf sàng la ci ak yépp fa tabaarakallah kon foo boobaa nag la nga doon préparé fii ci àdduna loola nag moom ngay dunde foofa kon bu ko defee yaa ne wala tan sa nasibaka nag fexeel nag ba sa cër bul ko fàtte fii ci àdduna bi waaye bum la yàqal fële ndax fii jaaruwaay la rek école la fexeel nag ba école bi bul fi yàq nag loo xamante ni boo fi amee diplôme bi ngay wut donc di nga ko mën a utiliser faneen ndax danga fi ñëw rek ngir jàng am xam-xam waaye mu la yàqal bu ko defee yooyu yépp ah ñi bàyyi ci xel tabaarakallaahu yàlla ne yooyu eh, jaam bi moo koy soxla waaye man soxlawuma ko moo taxoon mu waxoon ci xadisul qudsi yonent bi diñu ko leeral ak ci waxam yi tedd yooyu ne doomu aadama yi sax ñoom bu fekkoon ne bi eh, wakkiilu nañ ni picc wàkkiiloo ci boroomam nee na kon ma koy wërsëgal comme ni may wërsëgale picc ndax boo xoolee picc yi muy njanaaw yi naaw tey ma demagoo ci marché bi ba gis ay magasin yu ñu tëj ñi ne yi magasin yi njanaawi la picc yi ñoo ko moome ndax seen dund fi lañ nekk dañuy beñ mu manqué moo tax ñu jël ko estobel leen ko foofu déggagoo ko fen waaye kay marchandise mi ñuy jël estobé ci magasin yi yépp buñ ko xoolee pour doomu aadama yi waaw ngir rekk préparer boppam ngir bañ xiif jàpp kook yu mel ni ki yooyu moo waral jaaykat yi jël seen marchandise stocké ba ci ba mu fees ñi tëj ah ñeneen ñeent noonu def noonu ñii tam dañuy wut seen eh, magasin def ci seen dund ak yépp beñ rek mu manqué waa ah, donte duñuy du commerçant mais tef nañ ko seen dund nga xam ne seen dund at lépp jënd nañ ko stocké teg waaw ah. yàlla te nee na doo dema dem ba gis ne bii njanaaw yi ñoo ko moom moo tax nu muy def bu xëyee rek tàllal loxo yi yàlla maa ngi nii de sama wërsëg yaa ne yaa ko yore waaw te sama doom a ngi nii di jooy sama wet day saanam léegi nag seen dundak sama dund day ci yow lañ ko yaakaar fan la aw yàlla ne tawajja maa shihta fu la neex rek naawal jëm waaw nga seen ko nag bu ko neexee mu ne naa aw penku bu awee penku dem yàlla wan ko fa ndox mu naan yàlla wan ko fa pepp mu lekk walla dugub walla walla walla mu lekk ba suur sex ñëw ba ci doomam joxle kon moom la mu la mu doon wut muy biiram boobu bàyyi ko yàlla yàlla feesalal na ko ba mu fees ak ñam ak ndox waaye ànd ak loolu njaboot gi itam nga xam ne ca tàgg ma la leen bàyyi mënuñu dara ndeysaanam ah yàlla itam moo yor seen wërsëg jaarale ko ci moom ko defee mu seex ci gémmiñ nga dem ba àgg waaw ah, bu dee dañuy nelaw mu yee leen nga seen leen ñi ŋàng tàmbali mu jël seen lekk jox leen ñi lekk ba suur fa tabaarakallah tëdd nag ndeysaan bu fajar jotee ñu jógati waaw ah, te gis nga duñ ci am benn problème waaw ah. léegi nag amma bu dee doomu aadama bi itam gis nga nee na bu ñu wakkillu woon kon noonu picc mi wakkiloo ci boroomam nee na kon noonu laa koy e, jox ay xéewal moom itam ba nga xamante ni lu mu soxla rek fa mu jublu rek bu fa demee fekk fa lépp waaw waaye léeg-léeg doomu aadama bi muy jàpp ne kon ndekete mbiri léeg-léeg bu bu tàmbalee amul nu mu def rek ah, métti métti bi ci moom lay ñëwee moo waral muy def di xante di def naka sudul noonu ba xattaa sax léeg moo lay jaral ngay jël di kër ci kër ci di dajale dajalool loo xamante ni yow euh, dundub exemple ay ati at la te yow at yooyu ngay programme yépp di ko wut di denc ndeysaan yow doo ko fekk wala loolu te nga sonn mu jaral la nga sonn lool waaw tey bari na doomu aadama yi ñoo xam ne tey li ñu yor ci banque yeeg li ñuy yor ci wàllu alal fi ñu ko defa yooyu leer na leen ne ñoom mënuñu ko utiliser fii ci àdduna ndax xaju fi waaw ñoom li ñu war a utiliser par bis waaw ak li li nekk ci seen alal ah, mu leer na ne at at yuñ ko fi lekke amuñu ko waaw ah, ndeysaanam kon jërul mu lay mu lay yàqal yenn yi ci wàllu jëfin waaw jëru ko waaw ah, kon dalal rek fa tabaarakallaahu def li nga xamante ne rek mooy li mënta ñàkk li ñuy tudde sabablu rek nga sabablu rek jéem mu bañ laa yàqal nag sa lenn anam bu mu mën a defee utin wi mu rafet jëfin ji wi mu rafet waaw ndax nettali rek lay mujj doon amal maru ila hadisun baaduhu foon nag fakkun hadisan xasanan li man waa ku mu ci mën doon si ñun rek nettali rek ngay mujj waaw nettali rek ana ana mu ne nag góorgóorlul fexe nag ba bàyyi fi ah eh, way woo xamante ne way wu rafet la maanaam ñi lay ñi lay nettali ginnaaw boo fi jugee mu doon loo xamante ne lu rafet lay doon waaw ah, tey boobu boobu léegi yaa ngi dégg buñ dee joxe ay misaal ci ñoo xamante ne fa alhamdu wa shukur jàpp nañ ne seen jikko baaxul léeg-léeg ñu ñëw tuddal la ci ku ci mel ni kàccoor bu firaaw na mais xoolal pouvoir bi ko yàlla joxoon ba jëmmi tey ji xoolal ba ko yàlla dindeeg léegi ñaata ci ay at mais teewul ñu ngi koy fàttaliku ngir mbon goo xamante ne nekk woon na ko fi kon bonam googa du ko tee dem ah du ko tee dem ak ñeneen ak ñeneen abou lahab ak ñu mel ni ki yooyu ñoom nam rose ak ñu mel ni ki yooyu gis nga leen kenn ku ci nekk doole ji la yàlla joxoon pouvoir bi mu la joxoon teewul rekk nga féeteer lu nekk ci lu neexul yàlla mais teewul fii ba àdduna bi di fi jóge itam seen histoire ñi dañ koy nettali waaw ñi fi yoroon nguur waaw nga noonu itam ñi ngay seeni itam ñi nekkan ci lu baax boo ci joxee misaal andi ci ku mel ne rasulullah sallallahu wa sallam ak i sahaaba xoolal seen jëf ju baax ji nga xam ne dañu ko daan ëppalante kenn ku ci nekk yàlla rek leen ñor ndeysaana lu baax lu rafet ñu doon suñuy royuwaay yàlla wax ko joxoñ ko ci alxuraan ne ee yéen julliti ah, bu leen dem amu leen lenn lu ngeen di jëggaani ci fan di ko wutewaat déedéet lu raw li and yonent bi sallallahu alayhi wasallam andi déedéet nee képp ko dajeek moom jaratul ngay soxla leen ndax lépp la ndar kàpp mu mat sëkk fa tabaarakallah bu dee wàllu jikko fa jikkoyeyam moom fala tàmbale kon manu ñoo dem ba am jikko bu sut moom bi mu am kon nag li mu am nag bu ñu ko jëlee rek yokk sant mu na mooy suñu royuwaay nag nañ ko topp ci biir topp ko sibiti fa tabaarakallah ahsanul xaalixin ah mu doon loo xamante ni yàlla moo ko jël jox ñu ko mais teewul dund gi mu fi doon dundoot ak saxaabaam mu rafet lool xoolal tey ba mu fi jógeek léegi teewul ba booy nettali ci lu baax man nga ci jël ay misaal di ko joxe ak yeneen ak yeneen yu mel ni ki yooyu ak ay saxaabaam seen jëf ju baax joo xamante ne ñoom itam ñu ngi koy def waaw te xoolal ba ñu demeeg léegi léeg-léeg aaya wàccoon wala alxuraan saar wàcc ñëw kenn ci saxaaba yi jëfoon jëf joo xamante ne moo waral benn aaya ñëw walla benn saar wàcc waaw mais loola Eh, du deñ di làmboo ba suñ jëmmi jamono ji sahaaba booba jëf jëmu jëfoon ba tax aaye wàcc wala saar wàcc yow ci sa bopp boo góor góorloo ba jëf jëf jooju aaye booba wàccoon ca moom mel na ni wàcc na ci yow bu dee lu baax noonu bu dee safaan ba itam kazalik waaw ndax foo dem rek la fa amoon démb ba tey mu ngi fi ña doon baax démb ba tey ñu ngi baax ña doon bon itam ba tey ñi ngi sànku waaw ah, loolu olof di faral di wax naan fu ndox daan taa boo demee bu doonte la ñis naat boo demee fekk fa tepp-tepp ndox ya wala tepp-tepp yu lay wanal ni fii ndox a fi daan nekk ñi koy utiliser tànk yi moo di marqué fii nàngam ak nangam yooyu nag sàmmkat yi xam nañ ci dara na ñi wëgg ci déeg walla ca teen baak eh, nañ cay rooteeg tànk fas yaag nag yaag yooyu noonu mu cay mel di ca rëbëjoo macha allah misaal yu xam nañu ko kon bu ko defee yooyu yëpp ay misaal la eh, doomu aadama bi góor góorgóorlu ci xam ne ndekete kon kat ndekete biiru biir bi mu yore ah, eh, yàlla moo koy wakkiilu lu mu ca def waaye biir bàmmee la itam moom it kenn du ko fa defal dara lu dul rek la mu góob kon doomu aadama bi góorgóorlu fexe nag def ca lu baax ngir rek ëllëg bu fi jógee mën a noppalu bu demee man fa dund dund boo xamante ni dund bu teey lay doon fa tabaarakallaahu ahsanul xaalixiin yooyu yépp itam tegu rek ci ni ñu ko ubbee woon li yàlla waxoon ne rek maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaabuduuni muy doomu aadama bi toujours rek ak jinne yi ñu xam ne rek mission bi leen fi borom bi andee du dul lenn rek lu dul jaamu ko waaye tam wéetal ko ngir rek borom bi subhaanahu wa taala la mu ko dég mu mottalil ko te moom du sànk mboolem jëfi doomu aadama lépp lu mu jëf rek fa tabaarakallaahu yàlla dina ko fay imma bu dee lu baax dana ko fa fekk bu dee safaan baat dana ko fa fekk fa man yamal misqaala zarratin bu dee xayran yarahu ayatam wa man yaman misqala darratin bu dee sarrani tam yarahu nga xam ne yàlla du tooñ du jaawale jëfi kenn nag moroomam lu waay jëf rek loolu lañ lay fay kon fa tabaarakallah mu mel ni ah, waxtu wi mu ngi jige si ndax mbokk yi mu ngi xamal ne li ñu ame woon ci waxtu wi daanaka mat na lu ñu def rek lu muy tàggatoo boo xam ne dañuy teg suñu baaraam foofu rek di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp rek di ñu wax rek lépp loo xamante ne génn nañ ko yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu jéem a jëfe loola waaye itam lépp loo xamante ne tere la yàlla nañu yàlla dimbali ba kenn du ñu ci fekk ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nuyu bu baax mbokk yi fa tabarakallahu sëriñ cheikh moom itam ñu ngi koy nuyu sëriñ cheikh coor fa tabarakallah di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk bu baax a baax waaye sàmm ko ba delloosewaat ko si njaboot gi fa tabaarakallah waaye tam sëriñ Moussa Thiaw ca Njóobeen ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara ak mbokkam moom di sëriñ Omar Thiaw fa tabaarakallahu sëriñ Abdallahi ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen ñaanal yàlla waajur yi yal na yàlla yokk seen yërmande di jaay Seydou wujud sallallahu alayhi mbokki Sam Ndiaye bàyyiwuñu kenn jël nuyoo bi teg ko ci loxol daara ji di Cheikh Ahmed Tidiane muy Cheikh Tidiane Ndiaye fa tabaarakallahu mu demaaleel mboolem ku yeewoo Sam Ndiaye di nuyu ñëpp di nuyu Oustaz Abdallahi bàyyiwuñu kenn di nuyu borom kër gi itam di Cerno Hamid di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali yëpp di wax rek lu jub ci wax ji xam ne mbaaxu yàlla la lu si dëng lu ne rek matadik doomu aadama ñu ngi leen koy jéggulu ginnaaw bi ñu ko jéggaloo borom bi waaxiru daawaana an والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته